source of day, asalaamaaleykum téléspectateurs yi nga xamante ñu dañu taamu télévision Futur Média mbégte ak bànneex la ñuy àndal samedi bu jot ngir ñëw présenter leen seen émission La Balade La Balade nag lépp ci mbedd mi lay xewee àndandoo ak yéen dugg tey cité comico cité comico tey dañu ñëw seet si benn ndaanaan boo xamante ni Modou Coumba lañ koy wax kon tey ci suñu numéro moom la ñu taamu ngir ànd ak moom doxantu kon nu ñu def lu dul rek kon mu ngeen leen ko waxee léegi àndandoo dugg biir koñam ndax seen nañ ko kon nañu dox rek ñu ànd ak salaamaaleykum. na nga def grand. yaa ngi si jàmm. waaw Modou <laughs> noo def. ça va merci. yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla bu baax. ça ñu ngi si kawam. ça va bien ça va bien alhamdulilah. acca ana jox ko micro bi. waaw noo def. ça va merci alhamdulilah. mais Modou tey dañu am mbégte tey ñëw Cité Comico. waaw ñu bokk ko. waaw tey. Mhm. laajte ni fi nga dëkk rek. waaw ñu ñëw dugg sa biir koñ mais oto yi bëri nañ fi dee mbaa de yoo la seet. waaw non xam nga rek gaa ñu fii gis nga ñu bëri ñoo fi dëkk ñoo xam ne ay kilifa lañ ci réew mi. bon nit ñi di dugg di génn tamit yoon la parce que dañu am soxla si ñoom. waaw affaire daal noonu la demee moo tax euh, tey jii ngay gis oto yi bëri fi lool nii. ok donc tey euh, comme ni ma leen ko waxee woon. téléspectateur u balade Modou Coumba laa leen di présenté tey ànd ak moom doxantu wane leen nag li muy liggéey mu wax la kan nuyool teel ak téléspectateur ah, maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu sama mbokk yeeg sama xar yeeg ànd jàmm yeeg doomi réew meeg ñëpp ku nekk fii ak bitim réew. di présenté wu di leen wax ne man maay Modou Coumba musicien chanteur acoustique diplômé de musique voilà tey ma ànd ak Niang Tamba ñu war a def émission balade découverte bu TFM. kon téléspectateurs yi sant ñi nga xamante ni ñoo ñu accompagné tey muy complexe sëñ Fallou nekk Sacré Cœur 3 ñoom ñoo def robe bu oyof bi ci tàngoor bi ànd ak yéen ay accessoires également. Euh, également euh, di remercier Yvonne coiffure Coumbis euh, ongle Vira madame Ndiaye également ñoo ñu gunge tey ñu ñëw cité Comico kon dañuy doxantu de léegi lañ koy doon. te ku sañoon jii. doo nekk taalibe dëgg waaw mais di nga doon taalibe ci beneen fànn boo xamante ni tey ji du doon comme génn ci mbedd bi di yelwaan mhm. ngay nekk ci ay insécurité ba tax na man dama ci am benn histoire boo xamante ni dafa ma marqué touché ma trop sama carrière musicale ma ne il faut que ma wéy ci wala ma joxe ci sujet boo xam ne mhm. ci sama projet lay doon mu nekk lu war a développé ci côté bu ñu koy war a mën a xeexee ba suba mu am leneen loo xam ne mën a rangé wu ba loolu dootul am jëm ci dama nekkoon benn instant militaire benn jour may dox marché caaro yi fekk benn taalibe jamono yu ay feebaru waga moo amoon quoi. ma ñëw fekk taalibe bi tëdd ñëpp wër ko mais ku nekk di wax quoi gisuma kenn ku koy aidé ma ñëw yenn ko. nga ko. ma yenn ko ak góomi si kawama. ma mhm. yenn ko ànd ak moom yóbbu ko ci infirmerie bi. Mhm. bi ma demee ma ñëw ne infirmier bi waaw mais kii lan mooy pexe mu waxal ma ordonnance yëpp bindal ma ko ma dem jënd ko. ma faj taalibe bi sang ko ba mu kii yóbbu gaayen bi bindal garab yi ñu jox ko garab yi faj ko mu wér. Mhm. mais ci biñ koy faj sax dama dem ci benn magasin boo xam ne ci marché bi la nekk joxe fa xaalis. ne leen chaque jour na ñëw jël cent franc naan garab bu ko defee muy mën di respecter loolu. dëgg alors mu koy respecter di faju ba mujj wér. Mhm. xam nga ma gis affaire boobu tamit mu touché woon ma trop benn jour may dox nii rek dégg ku nekk sama ginnaaw di daw quoi benn xale naan ma eh eh, eh. man comprendre ma quoi après ma gëstu. gis ko mu ne ma tonton man mu ñëw mu daw jàpp sama tànk yi mu tontu mu wér naa. awandoo yi sama am ñaña sëgg sama am dara bëggu ma ko ñu Aliou Ndoye sama am Jalaku Ndoye sama bandi ngo ne sanu ne ci sigi jewe yaay ni jara acoustique muy benn musique boo xamante ni bu xaw a spécial uh-huh. mais également moo du Coumba yemul foofu ndax gis nañ ni koñ bi nga dëkk également yaa ngi jàppale xale yi bu baax a baax bokk hmm. na ci li nga wax léegi waaw mooy lim ñu bëgg a wan mooy euh, parce que taalibe dafa nekk phénomène boo xamante ni affaire bu affaire bu affaire bu doy waar Modou gars yi dañ ciy wax waaw organisme yi taxaw nañ uh-huh. ñi ci war a jàpp uh-huh. mais man ba tey phénomène bi booy xool day gën a yokk Euh, mun naa la wax benn affaire boo xam ne je le dis publiquement parce que TFM mooy télé bi ñu doyloo tey jii pour muy lancer message yëpp ci àdduna. li ma ciy mën a wax ba tey jii àdduna bi di ko dégg. Mhm. ba jusqu'au président de la République du Sénégal mu dégg ni man. Mhm. je détiens un projet boo xamante pour mettre fin à la vie du talibé. talibé ci boppam. waaw lii gaal gi mooy représenter Sénégal. Sénégal mooy sunu gaal. ok mais li ma jaaxal mooy gaal gi dafa nekk ci kaw. taalibe bi tëdd ci suuf. waaw nekk ni lii du la jox sax forme nit. moo lay moo lay wan ne taalibe dafay dund lu metti parce que tey Sénégal ñi koy diriger ci kaw la ñuy tëdd. Hmm. ci lu baax la ñuy tëdd jàmm jàng fee daal jàmm jàng fee. Hmm. ñii nag soo leen gisee ñu tëdd nii seen doole la ñuy sangoo. te dama bëgg message bi aussi pour téléspectateurs yi ñu ñuy seetaan xam ne du nekkin boo xam te ne ñoom ñoo ko bëgg. déedéet dañ leen ko imposer. si i waajur la. c'est l'irresponsabilité des parents. bi mooy nit ñi garabam. bii moom car rapide lañ ko def moom. waaw dañ ko jël dessin car parce que gis nga car bi. image bu marqué la Sénégal car rapide li mu fi doon. Mm. car rapide au au benn auto police la woon. gis nga taalibe yaa ngi nii xoolal gis nga leen sama koñ lañ nekk. fi la ñuy jaabante chaque jour. na ngeen def eh, jaajëf Faye jërë ngeen jëf merci beaucoup. jërëjëf gis ngeen liñ doon wax ngi nii. waaw confirmation du loo xamante ñoom ñoo ko. déedéet ñoo ko ñaan. Mariama Furusube Mariama Furusube Mariama dëkk Sangoma Furusube waaw waaw Mariama Furusube Mariama. changement ay jeunes la ñun ñëpp ci cité lañ dëkk. Mhm. tu vois léegi. d'habitude chaque weeru koor dañ fiy def ay genre marmite du cœur. ndogu du cœur ndogu bi waaw ndogu du cœur ok. moom suñu grand la. Mm-hmm. bu ren bi amoon nañ comme pare boo ñaam boo ñaam mbër. mbër waa ok mais grand bi nii mënuñu koo fay. ok jàpp na ci affaire bi carrément. dëgg la dëgg la waaw jàpp na action même affaire structure bi nii bu ñu ko doon démarché moom bokk na ci. gars yi ñu mm-hmm, jàpp. Mm-hmm, euh, démarché nañ teg nañ affaire bi euh, ba léegi nii sax. Mhm. day romb ndax mu am na benn son bu muy def pour ay taalibe. ok mu ci benn projet. d' projet boobu wax nañ ci. loolu yaa ñu ko wax exclusivité bi kon dinañu ci may. ok. waaw euh. moom am na son bu mu teg pour taalibe son boobu boo xoolee par rapport ak. mur yi ñaari mur yi dessin yi ak yooyu ok ça colle effectivement ça colle. waaw Modou. waaw nga ne saxophone nga fa jàng. Euh, saxophone nga fa jàng mais après da nga euh, dem jàngiwaat musique bu baax. waaw waaw parce que ñoom dañ ma dañ ma tàggat tàggat boo xam ne nii mooy que fu ma dem si àdduna. man ba jusqu'à présent fu ma dem si àdduna partition musicale boo ma jox dama koy déchiffrer. parce que moom laa jàng bu ma nekkee foofu soliste saxophone laa woon ci fanfare bi. ma dem ba dugg sax orchestre national classique. moo nekk benn volant. ñu dem ba ci biir aussi ma am xam-xam boo xam ne jàng naa ko ci musique ma jël instrument bu ñuy wax ni piano clavier. Mm-hmm. maa ko jàngal suma bopp kenn suma ko jàngal si àdduna. de que guitare aussi maa ko suma bopp. Mm-hmm. damay toog jël suma instrument par rapport ak livre bi li ci nekk. Mm-hmm. ak benn benn benn xam-xam bi ma am ci théorie musicale bi. donc pour ma dem day yomb ma def ko. noonu daal laa dem ba yàlla def may wëy di jouer guitare di jouer clavier. di jouer saxophone. voilà noonu daal la affaire yi tëddee ko waaw wàllu mm. musique yaa ngi ci gis nañ ni génne nga également ay single waaw boobu ba léegi mm-hmm. ñaata temps bi nga commencé dugg ci musique bi ba ñu xam la ràññee la ci waaw nga génne single def ay vidéo mm-hmm. euh, ñaata temps la tolloogul boo man def naa def naa quatre ans actuellement yoo xamante ni bi ma génnee parce que bi ma nekkee armée mm-hmm. euh, def ma woon génn nii ci biti def suma affaire bopp d'accord parce que mayu ma ko woon mais bi ma génnee euh, quatre ans mu ngi nii may def suma affaire bopp génne génne naa ñaari single ñaari single waaw ñaar yooyu clip jotuma leen lan lay lan lay wax moom jaaw ko mais am nañ benn vidéo boo xam ne Tafa xam naa ne mi ngi mi ngi ñuy topp mooy Mariama muy vidéo bu am solo affaire affaire lébu waaw loolu bi waaw euh, xam nga nit ku yaa ngi waaw dama <laughs> loolu waaw euh, jaaxal na Sénégalais yu bëri jaaxal na ku mais li ma leen mën a leeral ba leeral mooy nit ku nekk dafa am lu la yàlla booleel naaj bi laay daw di kaay ñu taxawee nii waaw nit ku nekk dafa am lu la yàlla booleel. waaw. te li ci bëri kenn du ko wax ba mu leer mais dañ koy junj rek. dañ koy junj. Euh, lu mel ni bi may tourné sama clip bi. Mhm. am na loo xam ne confirmé woon ci kanamu réalisateur beeg ñi fa àndoon ak ñëpp. Mhm. bi ñuy turne clip bi mu tombeeg na nabi laay ci wakaam ci la benn ceeli bu mag naaw ñëw ba sama mbagg am affaire bu ma tegal dem. Hmm. man tamit teg moom lan la. waaw loolu duñ koy wax. <laughs> <laughs> d' accord wax naa ko sama gars yi. d' accord bon ñaan rek bu leen ko wax parce que loolu tamit aussi la leen yàqal. d' accord waaw léegi nag euh, mu nekk loo xam ne aussi man duma ma ci am lu may tiit lu may ragal parce que suma famille la man Ndour laa sant. Mhm. man suma maam mooy Mbégane Ndour Mbégane Ndour euh, addunaam yëpp rëbb rëbb la doon def. dëgg la kon donc am na ci loo xamante ni euh, mën na nëbbu am na loo xam ne nag. mën na feeñ waaw mën na feeñ waaw noonu daal la affaire yi. loolu daal moom nga moom ci nga inspiré waaw ba génnee woy boobu. waaw am na ay réalité yoo xam réalité la ay réalité la parce que yaa ngi dégg fenn fu may woy naan ndëpp dëgg la. waaw yaay dëgg la lébu yaa ko moomee cosaani maam la maam njëree ko jiite faj na fi ku ne rawaan yi xeet wu ne am na ca. seetloo morceau bi boo ko tegee fenn. Mhm. soo demee cinq minutes morceau bu jeexee di nga dégg am ñu koy woyantu. Hmm. parce que loolu lan moo koy def. waaw parce que morceau boobu am na ci yu bëri yoo xam ne dafay laal rawaanu ku ne. Ah, Demba affaire rawaan la fi wax. koñ waaw ñii samay samay waa koñ lañ waaw ñii <laughs> ay grand footballeur lañ. man li may wax moom grand bi moom borom baax la moom sincèrement parlé. alhamdulilah dëkk bu rafet bu ma ko xamee sax. alhamdulilah bien vrai que yàggul. Mhm. mais saa ma ko mi ak fóolu mooy def. Mhm. daf may conseiller. Mhm. di ma wax ay wax bu rafet saa su ne. mais musique bi. yaa ngi koy def. waaw. Euh, ci bi ñu laajtee également. Mhm. yamale woo ko ci yow. ndax yaa ngi def benn école de musique boo xam ne. Mhm. xale yaa ngi ñëw. ci sa mhm. wet. waaw nga leen di nga jàngal. non man damay jàngal euh, ku ne man damay jàngal ku jàng école ak ku jàngul école yëpp dama lay jàngal musique. parce que ci pédagogie boobu laa xam ci laa jàngee musique ak lépp. d'accord voilà léegi ci forme yi nga xamante ni aussi dama koy jàngalee musique. mooy que nit ki euh, dafa am test yoo xam ne da nga koy defal ba pare. Mhm. waaw il faut nga defal ko benn genre test ci carte boo xam ne xool. moom ban degré de compréhension lay am. bu gaaw ak bu yéex ok bu yéex. waaw yéen dañ ko ci war ñi nga xamante ne yaa ngi leen def ci ñoom xam-xam. dañ lay fay. Mhm. wala euh, da nga koy def. noonu non non comment ça se passe man du ma laaj xaalis. man du ma mhm. laaj kenn mu fay ma. surtout mm-hmm. xale yi nga xam ne à partir de six ans ba quinze ans jëm kaw. mais nag euh, uh-huh. Modou Coumba fàttali téléspectateurs yi tey Modou Coumba la ñu dalal. Mm-hmm. muy euh, nag benn woykat boo xamante ne day def musique mm-hmm. acoustique. Euh, di musique boo xamante ne gis nañ ni gaa yaa ngi koy gën a ràññee. mu nekk musique bu neex également. ñi bëgg acoustique bëri macha allah. génne guloo album. trois single nga amagul benn nga defagul vidéo. yaa ngi jàngale musique. mais. suuf gars yi fayuñu la ci. waaw waaw ne kumba ci looy dund yow kon. waaw xam nga lu lay jàppale. xam nga yàlla moom euh, bu xaree gémmiñ faaw dana ci def dara. Euh, da ngay xool euh, musique bi su ma koy jàngal xale yi du ñëw ne seen papa fay ma nangam da ngay ñëw ne moo ñaata lay fay ma ne la non je participe juste. pour benn éducation ci côté xale bi. parce que déjà xale boo koy jàngal musique yaa ngi yokk xel mi. Hmm. te xel mi bu nangoo di sonn di nang di xalaat suba ci lu mu dugg rek mën na ci gaaw réussir am na comme par exemple benn boy bu nekk fii papaam euh, euh, jabaru américaine la am euh, papaam yaay yaay ja papaay jabar mu ngi dëkk Californie. di guitariste la bu mag foofu hmm. États-Unis bi muy ñëw nee nañ boobu dafa am ay cinq ans six ans mais gitaar bi nag rek la gàddu bi muy ñëw jógee États-Unis waaw traversé aéroport yi mais guitare am rek la yor yaa ngi cool naka suba si hmm, musique ñaata temps nga ko defagul def naa quatre mois merci beaucoup hein. mën nañ wax hmm. ni daal yow actuellement. waaw pour l'instant parce que ñiy jaay sax. waaw amaguñ ci xaalis. dëgg la waxantuma laak ñi nga hmm. xamante ne génneeguñu. Hmm. laa ci wàllu musique fan nga ci toll lan nga lan nga nam ma def da ngay génne yeneen singali album bi kañ lay génn lan ngay mm. xaar lan moo ci des waaw euh, euh, bëgg naa def album mm-hmm. te mooy xaw na des waaw mais gisagoo kenn ku kenn ñëwagul te maa ngi wut dëgg mais xam naa ne producteur bi may njëkk a am mm-hmm. euh, dina kontaan parce que am na lu bari loo xam dama ko liggéey toog yaa ngi ko denc maa ngi ko denc toog kon daal Modou Coumba actuellement na pare na pour dix album yi. bis bu nekk ma wax leen ko. Mhm. ñoom ñoo jar a jàppale. Mhm. soo ko déggee am na talan am na mhm. xolu yërmande. ndax mi ngi dimbalaate. amul mu ngi sant yàlla waaye mi ngi dimbali. ñi nga xamante ne ñoom la tane te loolu dafa am solo. donc ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan nañ ci jàpp. te xam ne euh, dañuy def. te yàlla rek tax waaw bu boobaa hmm. yàlla jàppale moodu Coumba ñoom it yàlla may leen li ñu bëgg dëgg la bokk na ci également ndax TFM demul bàyyi leen hmm. waaw ndax am na benn jeu concours boo xamante ne dañ ko teg ci émission bi le hmm. Modou Coumba rek ngay def da ngay def TFM def espace def Modou Coumba vingt six cinq cent nga koy envoyé dina tax mu mën a gagné matériel de musique yi nga xam ne dañ ko teg ak yeneen xéewal yi ci biir waaw waaw Modou kan mooy sa idole man na laa sant yow ba nga sant <laughs> le moment yow bàyyee ni maa leen fi dugal Béga Ndour moo jëli pël yi ci biir frontière Sénégal. waaw Ndour nga sant jeex na Ndour nga ah, sant waaw Ndour man Ndour laa sant. waaw Youssou Ndour. Mhm. jee tax nga fànn ko kon. yow bàyyi bul ma yóbbu yaruwaan. ngi lay remercier bu baax a baax tey nag dañoo amoon mbégte ànd ak yow tey uh-huh. uh, dañ lay bàyyi uh, yaakaar na ni am na ñoo war a sant gërëm leen tey ñoo mm-hmm. xamante ne ñoom ñoo jàpp. ba léegi moo Modou mm-hmm. Coumba. mu mm-hmm. uh, ngi wëyal. waaw gars yi fan lañ la war a fekk ak nan ngay sant. maa ngi gërëm Sénégal yëpp képp ku mos a yëkkati sa lu ndaw. lu mm. tuuti teg ko ci man muy ñaan. muy loo yónnee muy lu ma dégg loo wax wala loo xam ne def nga ko te yàlla la gis yàlla la dégg gërëm naa la sant naa la gërëm naa ñëpp am na ñu ma jege ñoo xam ne nii mosuñ ma seetaan ku ci mel ni Moustapha Fall ku ci mel ni Déthié Fall ku ci mel ni Ibrahima Thiaw ak euh, Chérif Ibrahima Aïdara euh, kooku dama koy gërëm bu baax di gërëm sama sëriñ tamit ci Touba koo xam ne lu ma jaaxle su ma ko waxee euh, du fanaan ci ci noppam te amul lu ma tegtal waaw di sant nag. yéen ñi tamit ñu ñëw parce que yéen su dul woon yéen kenn du xam tey dama leen di gërëm daal dama leen gërëm di leen sant bu baax su ma dëkk nag maa ngi leen nii lancer message ne man awma lu dul ñoom ñoom tamit yaakaar naa amuñu keneen ku dul man euh, sama dëkk foog naa may artiste bi fa jiitu commencé ci musique nii maa ngi sàkku ñaan ñu ñaanal ma te ñoom ñëpp laa yaakaar ñu ñaanal ma xeebu ma ci kenn te ñu xam ni tamit lu ma am foofu la jëm waaw wakaam maa ngi gërëm lébu yëpp parce que tey su ma jógee ba yëkkati sama loxo nee naan lébu ñoom a maa ngi leen gërëm baax ak jaraaf yu sundooy jërëjëf kon yow tey fan lañ lay fekk yaa ngi joué waaw damay joué damay comme euh, yàggul dara joué naa première partie wu Just For You. Mhm. première partie wu xalam. Mhm. keroog sax dama joué ba pare am ñu ma naan da nga xaw a niroog Souleymane benn côté. Souleymane Faye waaw après léegi ma ñëw Souleymane Faye woo ma ne ma beneen yoon booy joué na nga andi benn percussionniste bu euh, bu accompagner sa groupe. mu nekk benn affaire bu si biir ma ne ko waaw merci père. dëgg la te nag bon moom sama sama la ci beneen côté aussi. gars yi dañu ñàkk ki euh, mm. mm. leen ci yéen a ci a lu ñu mën rek rek mooy wanale leen ak ñoom mhm. yéen ñi nga xamante ni yéen mën ngeen leen a dimbali ngeen dimbali leen euh, bokk na ci Modou Coumba artistes yi nga xamante ni seen émission balaat tax na ngeen xam leen mhm. kon nag di wax rek ni ñun tamit suñu loxo ngi ci biir Groupe Futurs Médias yëpp rawatina TFM mhm. da ngay def TFM nga def espace def Modou Coumba envoyé ko au 26 500 soo bëggee nag mu daal di gañ neex li nga xamante ni dinañ ko teg ci biir émission bi ñi nga xamante ne ñoo ma ku ci mel ni waa Sëñ Fallou it ñoom ulay ak euh, ñi mu nekkal tailleur yëpp di ngeen gis seen euh, ci baawu écran bi seen numéro téléphone mm-hmm. Kumbis Yvonne Coiffure maa ngi lay sant gërëm la bu baax a baax mm-hmm. ak téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñoom ñëpp ñuy àndandoo ak yéen di leen wax très prochainement sur télévision Futur Média ci seen émission ba